asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Samadiyya ñu leen di nuyuwaat kenn ku ci nekk turam ak santam di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm niñ ko baaxoo defee àllarba gu jot di tànn kenn ci mag yi murit yi tedd yi nga xam ne dañoo àndoon ak Cheikhul Khadim di leen waxtaane tey ji nag ñu tànnoon kenn ci ñoom di sëriñ Hamsatu Jaxate ki ñu ko war a waxtaane nag di sëtam di sëriñ Saalihu Jaxate incha allahu fas yéene ànd ak ki ñu ko baaxu àndal euh, Serigne Baye Mbacke ñam bu 10 heures jotee incha allah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim barkeb cheikhul xadim bokki jullit yi bokki taalibe yi waa daaray assamadiya noo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi jiital ci nuyoo bi ak ziyaare bi sëriñ Abdou Samad moom sëriñ bu di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fi te defal ko ak wér ba yéeneem yu teddu yu sell yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal maamam xaadimu rasul mu defe ko ni mu ko bëgge di ko ñaanal mbokkam mu baax mi ci biir daara ji mooy sëriñ Hamzatu Mbàkke moom Cheikh Abdou Lahat moom it sunu boroom kàttanal ko te wéral ko ba yéene yu sell yi moo am ci lëggeel maamam xaadimu rasul mu defe ko ni mu ko bëgge ten ànd kook njabootu sëriñ bi ci biir daara ji yëpp ak taalibe bi yëpp kon nu fas yéene dëkk nag sunu jataay bi nga xam ne mooy ëttu magi morit yi saaye bu àllarba jotee ñu dem ba agg ci genn ka ci këri magi morit yu baax yu sell yi nga xam ne ñoo ànd nag Serigne Touba tànn fa mel mag fas ko yéene waxtaane waaye wettalante ci biir daara As-Samadiyya tey nag dañoo dem ba fa nga xamante ne ji muy mewnu muy mbaakol tànn fa benn jàmbaari Sëriñ Tuuba koo xamante ne ji amoon na taxawaay bu ràññee ci wetu sëñ Tuuba muy sëñ Xamsatu Jaxate lu fas yéene ànd waxtaan wi nag ak sëtam bi nga xam ne moo di Sëriñ Saalihu Jaxate kon Sëriñ Saalihu Euh, man nga dal di dugg nuyoo te présenté wu liggéey bi incha allah sëriñ Saalihu bismillah aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wa salawatullahi wa salaamuhu ala abdihi almustafa wa ala alihi wa sahbihi euh, mbokk yi ñoo ngi di nuyoo bu baax xaafiru lixfir kulla ma taxaddama wa ma taaqara wa ma baynahuma fahimni al wa sidni ilma wa amalan wa fahma mbokk yi ñooy am mbégte di siyaare bu baax di jàllali siyaare bi ci sëriñ Mbay Mbàkke ñang mi mu jàllale ñu ko ci suñu kilifa gu tey tedd gi sëriñ Abdou Samad ak suñu kilifa yi mu fi tudd sëriñ Xamsatu ak mbooleem Euh, kilifa yi fi nekk yëpp euh, di am mbégte nag bu baax ci ndigalul suñu kilifa euh, sëriñ Abdul Ahad di jëwrin moom sëriñ ci Diakhaté di jëwrin ci di jëwrinu sëti sëriñ Hamsatu yi fi nekk ci ndigalul kilifa am sëriñ Xaadim ak mbooleem baay yëpp ngir mën a ànd ak mm, jataay bi ginnaaw bi ñu jégalu bu baax nag ndonga liy wax ak yéen waaw mi Saalimu Jaxate la di doomi sëriñ As Jaxate mu sëriñ Amsatu di juddoo ci dëkk bi yaroo fi defee fi lépp yaroo ci daara Touba Belal jànge fii Daarul Maarif ba fii may waxe yéen it ñu fa nekk fa di fa jàngale di jàngale majalis ci jumaa ji di jàppale sëriñ bi euh, tey nag ñu amoon ndigal ci sunu kilifa sëriñ Abdou Lahad Jaxate euh, ngir mën a bokk ak yéen jataay bi euh, di ab barkeelu boo xam ne dañ koy dañ koy duggee ci jataay bi ñu tuddee jataay yu mag yi xam naa nag di donkant mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi dégg kàddu yi ci ñàkk kee mën a taxawe ak fasaxa bi bi bi bi des ci làmmiñ wi waaye ndigalul am ndigal ndigal moom bu jibee jëm ci murit doo ci mën a am pexe benn bu dul jafe diñaanal ñaanal suñu kilifa yi sëriñ Abdou Samad suñu borom euh, sàmm ko euh, bàyyil ñu fii ca guddal aw fanam ba mbooleem yéen yi mbëgg liggéeyam yi liggéeyal maamam ci wàll yëpp yàlla defal ko ñu ndam lu raw njort murit yëpp waaw kon baax na jërëjëf ñu ngi déglu sëriñ euh, mbay Mbacke waaw kay jërëjëf sëriñ Salihu e, présentation bi rafet na lool te jotal na nuyoo bi ak jaar yi itam jotal na bu baax a baax e, macha allah nuy rafetlu itam jaaruwaay yi ak àlluwa ji di ñaan suñu borom barkeel ko. kon sëñ Salihu ñu bëgg a tàbbi ci waxtaan wi muy jàmbar ji ñu bëgg a waxtaanee muy sëriñ Hamzatu Jaxate mel ni sëñ Hamzatu. ku xam la ci yoonu murit eh, bu fekkee bindkat yi ñiy liir nga xam ne seen ab gëstu daa jëm ci liir tàmm nañoo gis tur wi ci mbindam sëñ Basiiru sëñ Mamadou Lamine jóob Dagana ak bindkat yi bu fekkee diglukat yi tàmm nañoo dégg turu sëñ Xamsatu Jaxate ci mbooleem ñi nga xamante ne ji ñooy waxtaan di tudd sëñ Xamsatu boo nu doon dikkal ci sëñ Xamsatu Euh, ci wan askan la bokk ak fan la feeñe jamono ak ñan ñoo di ay wayjuram euh, loolu bëgg nañu nga dikkal nu ci bu baax a baax Serigne Saleh. Ah, waaw waaleykum salaam wa rahmatulah waa koy Serigne Mbaye Mbacke ñoo ngi lay siyaare bu baax di jégalu ci yàq gi jëlaat euh, waaw Serigne Hamzatou bala ñuy dugg loolu rek niñ ko xamee ci mboolem histoire Serigne bu mag moom. <laughs> Eh, yaakaar naa histoire yépp saxal nañ ne ma ne su ta tudd nit yàlla yi ci fu mu mën di doon sa doo doo doo doo ko tudd te li suñu borom waxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci alxuraan na ko huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil muminin bi ko yàlla nammee dëgëral da ko boole woon ay saxaaba yu dëgër sëriñ Tuubaa yi sax si yu mag yi nga xam ne dañ leen di faral di tudd ak fu ngeen mën a dégg rek lu normal lay doon ñooñu mën a bokk ci kër sëriñ Tuubaa eh, ñooñu mu doon tuddee eh, wali xaada ahbaban bihim usxirul nuska sëriñ Xamsa nag mënees naa wax ne kenn lay doon ci ñooñu ndax moom yàlla dogal na ne bala ñuy ñëw ci askanam moom eh, basma xadimiya la mahda moom bi mu amee fukki at ak ñaar la dugg ci loxoy sëriñ bi ba ni mu bi bi ni fi sëriñ bu mag bi jógee génnul ci ay loxoom ndax ci ndigalam la ko fi bàyyee kon nag lépp lu nekk ci moom sëriñ bi moo ko def ci moom ci loolu buñ duggee ci waxtaan wi allah rek rabbi danañ ci jiima feeñal suñu kemt lay kat bi nga xam ne nit ñaa ngi dégg sëriñ Tuubaa ku nekk di fexee fu nekk di ko wëri moom Serigne Touba waxtu woowu la ko jëlee ci ay waajuram laaj ko ñu andil ko ko mu téye ko ci biir këram eh, fekk dara jot jotagut a nekk ci moom lu ñuy def taxal yi waaye nag mu def taxal yi ci moom sol ko ba lépp lu nekk ci moom tey ñu koy gis ba mën koo xemmin Serigne bee ko ci def ni ko Serigne Bay Jaxate waxee ca nañu ci buñantal ga bi muy wax ak Serigne Abdou Ahad ko loo gis ca Xamsatu moomee moom yi ci yarak ak jëfe xamal ne moo moo ko ci def ji wax ku nekk la bér la xam eh, sëriñ nag bu ñu bëggee tudd ci ban askan la bokk dugal beneen audio sëriñ Xamsatu nag eh, eh, ni ngeen ko xamee mi ngi bokk ci usratu njaxate mbaakol waaye nag moom teel nafa faa jóge lool ba fa waajuram di jóge it fi waajuram jógee doon doon ko fa dara euh, loolu li ko waral dana feeñ ci biir wax ji ba tey euh, usuratu nag mën na am am na ñun yëngatu ci taarix wuute nañ ci waxiin am na ñu jàppee ne ñu lii si xaadima kala wax nee na ci bannoo biir yi lañ bokk mu jege woon daymaan yi lool ay surafa am na ñu ne mi ngi bokk ci sonenke yi loolu dàqowut ak eh, nekkam ak askanam ci bannoo biri am na ñu ne ci jaaxanke yi lañu bokk xalaa kulli xaal bu dee fii ci kër si am satu moom li nga xam ne gis nañ ko fi bàyyi bàyyi ko fi sekki mag ci bàyyi di ko yore ko muy sëriñ xaadim moom sëriñ Abdullahi buñ ci sukkandikoo dañuy jàpp ne maam Xamar Kaba mi nga xam ne moo njëkk ñëw jugee senegal ñëw dugg si ci biir réew mi moom mm, donte juge woon na Mauritanie waaye jaaree ko juge na Mali jaare ko Mauritanie mooy li gën a li gënoon a gaaw ci moom kon moom mi ngi juge woon mi ngi dugge senegal ci frontière u moom dafa dugge bi ñëwee nag ñu dalal ñu dalal ko moom maam Omar Kaba eh, benn laaman daat koy dalal eh, bi mu ko dalalee nag may ko sax soxna eh, ci jamono yi jamono yi yooyu nga xam ne imbratur imbraturiyatu jolofiya boobu noonu la Sénégal tuddoon ñu masaan wax jolof nag lépp ci la bokk Kajoor ak Bawol ak yëpp daan dugg ci loolu Euh, bi ko laaman boobu dalale nag daal koy may soxna waaye nag fiñ ko njëkk a dabal euh, dalal moom ci njàmbur la woon nee nañ euh, laaman bi wàccoon it moom lañ daan de laaman wuntu sara jeng waaw mu may ko nag doomam ju ñuy wax farimata jeng mu am ca kuñ naan Moussa farimata bi demee ba toll ab diggante nag dafa mel ne lañ leen maam Omar Kaba moom la fi jógee daal di delluwaat euh, jaaraat Mauritanie delluwaat fa mu jóge woon ca Kabakuta ñu saxal loolu ci ay historien waaye loolu moom yaakaar naa topp ko dana gudd lool. waaw kay loolu mooy fukkeelu maamu Sëriñ Xamsatu boo ko doon gàttal rek ñu tàmbalee ko ci ne arab gën a baaxoo waxee mooy Sëriñ Xamsatu waajuram mooy Sëriñ Moodu Asta. jaxate mi doomi masata euh, masata mi ñuy wax doomi madu kala jaane madu kala jaane mi doomi masata moom baaba xari njaay masata moomu di doomi baaba xari njaay nag mooy moo sos mewndu gi nga doon tudd léegi masata moomu di bo doomi baaba xari euh, di doomi ba tey masata baaba xari njaay moomu di doomi alsaan alsaan mi ñuy tudde alsaan kumba sakki jeey muy doomi yéeri mi yaayam tudd tàkku caam ñu an ko yéeri tàkku caam mooy doomi Lamine Yoro Lamine Yoro moomu nag la Moussa Farimata mi njëkk a juddoo Sénégal ci doomi Omar Kaba mi nekkoon ab naar bu weex eh, juróom mu dugg senegal daal di demaat bi ñëwee nag laamal bi bi mu leen dalalee danga wax ne daf leen reyal aw nag bi mu leen rayalee aw nag ñu seddoo ko mu àndoon ak yeneen i doomi soxna yu bari ak seeni eh, ñu leen daan toppatoo di ak liggéeyal biñ gisee nag mm, bi ñu rayee nag wi ñu am ay sang yu bari yu ñuy ber di leen toppatoo ko defar ka ñu jëloon daat koy jox reswaag yooyu muy maam Omar Kaba ñu daldi koy bind loo wottal eh, sang si xam nañ ko bi mu bindee wattal nag ñu xam ne ab sang la ca ko laa mën ma daggal lu xaw a takku ci suuf mu tàmbalee dëkk ak moom bi ni mu jógee njàmbur daal di eh, ci maam ci ci ak njabootam <coughs> wax nañ ko léegi muy masata baaba xari mooy ki sosoon foofu ñuy wax meewlu kon sëriñ satu bu dee ci wàllu askanu deret foofu la bokk mm-hmm. jërëjëf sëriñ Saliou ci lu am solo li nga nu leeral ci càllal ak sëriñ Hamsatu ak ay bokkam yi nga xamante ne ji ñoom la ko yàlla sédde loolu yaakaar naa leer na bu baax a baax a baax a baax kon ñu bëgg a dem ci ñaareelub tomb bi muy ñaareelub laaj bi muy sëñ Hamsatu ana ci man at man at la feeñ jamono bu dee ci miladiya wala ci hijriya wala bu nu mënee am ñaar yëpp moo gën ci biir looloo tam ñu ngi ciy sàkku ab leeral dinañ dégg ñuy wax ne sëñ Xamsatu mooy seexub yoon wi at mi sëñ Tuubaa woote yoonu murit ci la sëñ Xamsatu Jaxate feeñ jamono ndax loolu wér na wala déet mën naa àndaale ak laaj bi ak itam sëñ Xamsatu euh, kon day mel ni yooyu sax di nga ko mën a tontu bu ko defee ñu ñëw ci ñetteelu laaj bi Sëriñ Saalihu incha allah waaw sëriñ Serigne Mbacke Dieng ñoo ngi lay siyaare bu baax xam naa nag fi nga daanee la ci laaj bi moom filay laay sofe mooy li li siiw ci ne Serigne Hamsatu mooy seexu yoon eh, wax ci wér geeg ñàkk gi wér nag moom mën na xaw a jafe waaye nag bu ñu waxee xaraa in yi ñuy indi da nga mën a xam li tax ñun ñu wéral lii ndax yàlla dogal na ne eh, bind nañ ci Serigne Hamsatu bind ba it yaatal nañ gëstu gi bi ci wuute amee it yaakaar naa sama bàyyi nee na ma eh, day day day day li yi wax al ibnu aqrab wa axbar bi sani walidihi bu wuute amee rek dellu ci njaboot gi ñu wax suñ borom dogal na ne seeni waxit ojo yi mi ngi fi ak vidéo vidéo yi ci liñu ñu tontu ci laaj bii nga laaj sëriñ Xamsatu li gën a wér te siiw ak dëppoo xaw ce am mooy muammar la woon ku guddoon aw fan la lool lool lool njabootam gi fi nekk nga xam ne yàlla nañ la suñ borom gën a yàggal ci gën leen a wéral moo leen sutoon aw fan li gën a lëng sax mooy amoon na quatre-vingt-dix-neuf ans bi mu fiy amoon na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent dafa mel ne nag mbooleem ñu koy gis ñëpp ñu ko mas a gis ci ñi laaj ñëpp saxal nañ ne ñoom ñëpp nee nañ bi mu fiy jógee àggoon na ci màggat ci télé ngir ak nekkam mag woon ak yu mel noonu ca loolu boo gisee ñu jiital ko ci laaj bi dañoo bëgg li ñuy tontu ñu xam ne jiim nañ cee sàmmonteeg suñu kéemtu lay kàttan ci ci eh, li ñuy bëgg a wax ca moom mi ngi fi mi ngi fi bàyyiko ko eh, ñaar fukki fan ak juróom-ñett mars 1968. waaw ñu xëy suba denc ko ci bisu dimanche bi 29 euh, mars 1969 da tolloog bisu Aasuraa ca cat la mooy ci jamono yi jant bi bëgg a fenk du ñàkk nag ñi nga xam ne nekkuñu woon ci biir kees gi ñu ngi koy yëg bi biñ julee tiis bu pare comme ni koy xamee rek léeg-léeg kilifa làqu ab diggante euh, xibaar bi yeex a tasaaroo ñun li ñuy wax mooy bokk na ci ñi nga xam ne almuridi am nañ leen ci bison asura boobu nga xam ne bari na ay xew-xew yu ci xew xewloo ci lislaam ci muharram 1389 moom la fi jóge kon bu fekkee am na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent boo ko delloo ginnaaw loolu li ñuy bëgg a wax nii ci la ñëw mooy ci taarixu milaadeem euh, jëmmi siyaaxu xissa bi nga xam ne Euh, xam nañ ko de mu juddoo ci suñu waajur yi nga xam ne ay boroomi xam-xam yu mag lañ ñu nekkoon ci yoonu murit euh, daal koy nettali jëmmi si jëmmi wax ji moom mooy bi yoonu murit di euh, sosu fekk na doomi soxna doomi sëriñ doomi doomi doomi soxna jang silla yoo xam ne danoon gën a àdduna tombe ak juddu bi yoonu murit lool it buñ demee ba xam lii ñuy bëgg a wax danañ xam ne mën na am rek sëriñ Xamsatu la woon waaye mën naa wuute nag ak moom lool te lool yi jàpp nañ ne moo gën a wér ndax boo xoolee at yi loolu benn la ci tegtal yi ñu lay jox ngir nga mën koo xam ndax bu fekkee at yooyu lay wax moom sëriñ Xamsatu amul fukk mu mukk juróom-ñeent fukki at sax 86 ans mooy maximum ci li mën a am bu dee dafa tombé ak yoonu murit bisu kii ba am na ci ca atam yooyu bàyyi mag di kenn ci njabootu sëriñ Xamsatu gu mag gi saxal na loolu ba ci sëriñ Abdul Muhaymin mi di Baye Cheikh Abdou Diakhaté saxal nañ ne amoon na quatre-vingt-dix-neuf ans ba tey sëñ Mbàkke Jaxate mi bokkoon ko sëriñ Amsatu lépp bi sëriñ Amsatu jógee mu dij njaboot gépp di leen wax li ko sëriñ Amsatu màggee moom mi taawu soxna Jang Silla sëñ Mbàkke Jaxate mii nga xam ne moom mooy eh, caat mu góor mu góoram ñaar fukki at lu topp loo xam ne sëriñ Amsatu màggee nag ko ci sëñ Mbàkke Jaxate moo Raybatul Bahriya ñoom ñoo maase 1895 la kon boo xoolee ñaar fukki at ci ginnaaw ñaar fukki at rek bu ko matoon na ngay mel mille sept cent quatre-vingt-quinze ngay dem euh, loolu it bu ñu jëlaatee beneen xarina mooy seriñ As Jaxate mi Serigne Mbàkke Buso Jaxate euh, mi Serigne Amsatu de Serigne Mbàkke Buso moom it net li ne ne Serigne Amsatu bi ñëw ci Serigne Touba fukki at ak ñaar rek la am ca ma nga fekk Serigne Touba Mbàkke Kajoor ca kon mënut a gane àdduna mukk 1883 wala 84 Serigne Touba amul ñaar ñaar ñetti at yu mat Mbàkke Kajoor ci li gën a sori ci li liñ mën a wax mbokk eh, ba pare daal di diggante boobu mu gën a fi àdduna am fukki at ñaar jàngi fi alxuraan ba mokkal bay génn le loolu it xel mënu koo jàpp ci wàllu xam-xam kon si ñam satu li gën a lëng boo ko xoolee dëppoo ak li nga xam ne magi Mbakole waxoon nañ ko mënees nañ ci tudd Baye Cheikh Anta ñun bi ñuy bind moom lañ toogaloon mooy jàpp nañ ne mi ngi tolloo ci ati hijriya yi mille deux cent quatre-vingt-dix al hijriya du sore ak 1873 boo xoolee ba tey ak ñi nga xam ne ñoom la maaseel ci yoonu murit ñëpp it seeni at soriwul foofu loolu nag mënees na ci tudd ñu bari xel it man mënees na jàpp jàpp ñu bëree bari ci nga xam ne ñoom la nekk doon kër Sëriñ Tuubaa wala nga xool sax ñenn ci ñi nga xam ne wér na ne mu leen mat ci mat ci atit bu dee dañoo saxal loolu nga xam ne siiw na mën na am dana wuute ak li nga xam ne moom la xam-xam di saxal ci boo delloo ci gëstu bu leer kon daal li ñu jàpp mooy mi ngi génn àdduna 1290 loolu la gëstu bi wax loolu moo dëppoo ak at nga xam ne am na ko moo dëppoo ak waxi si Mbàkke Jaxate jooju mooy dëppoo ak mu mun a fekk Serigne Touba Mbàkke Kajoor euh, ca ba mu fay ñëw Serigne Touba di ko laaj moo ko doon alxuraan day génne loolu dëppoo am na ci kon loolu mooy li ñu li ñu jàpp ci laaj boobu fi mu bokk fi mu gën a àdduna wax nañ ko mooy meewlu ay waajuram it Mamour Asta ñooy ay waajuram ñi mu bokkal lit mooy ñooñu Serigne Mbay Jaxate tudd rek maa ngi jégalu nag ci téléphone bi sonné <laughs> di liggéey bi waaw waaw waaw ñooñu sëriñ Hamsatu bokk wax nañ ko Abdou ki Hamsatu ak Mbàkke ki Balla Xasan yow seen nijaay ngi nii di sa lekkan du ci far ñooñu ne bokkal ñaari waajur bu dee ci jigéen ñi mooy soxna Faati moo ci mag eh, soxna eh, ah, Isa daat ci topp soxna Mariyam daat ci topp soxna Faati mooy waajuru sëriñ Abdul Baax yi mu ku tedd ki ak Seex Saaleh ak soxna Tahira soxna Aïssa mooy waajuru Serigne Abdul Xuddus moomu faatoo ndaam ñu denc ko daaru alimul xabiram ñu xuru Mbàkke ak euh, sëriñ ak soxna Marème moom it euh, Cheikh Abdoul ak euh, Cheikh Sohaybu bu dee Serigne Modou Sayid amoon na jeneen soxna bokkut ak soxna Jeng Silla muy soxna Aram Ñang mhm. soxna Aram Ñang nag dafa mel ne soxna Xadi Jaxate rek la amoon ci Serigne Modou Asta waaw loolu mënees naa tënk ni foofu ma jërëjëf sëriñ Saliou yaakaar naa loolu leer na nañ ku ci doon am ak sikkitam indil nga ko aw lay wu leer nañ te dalile kon ñu jàll ci laaj bi ci des muy sëñ Xamsatu ginnaaw bi mu feeñee ci jur yu tedd yooyu eh, ak ci at yooyu eh, ku ne doomi soxna nem njàng ku ne doomi soxna neb yar sëñ Xamsatu moom bi mu tollee ci dal jàng ana kan moo ko jàngal ak wàllu yaram itam kan moo ko taxawu ci wàllu ab yar akum jàng loolu mooy question bi nga xam ne moo ci topp sëñ Saalix waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Mbay Mbàkke ñu ngi lay siyaar bu baax sëriñ mi ngi jànge meew meewndu eh, ngir ñu mën rek wax lu leer ca wér eh, mooy waajuram moo ko jàngal alxuraan eh, donte nag dem na ci ñu bare bari ñu ñu tudd ne jàng na ci ñoom waaye bu ñu demee foofu rek daanaka wax nañ li gën a bëri li gën a leer gën a wér bi mu jàngee alxuraan ba mokkal ba mokkal nag bay géndale du ñaar jaar du ñàkk jaar na ci ëtt yu bari bi mu tollee ci génn li di jàppale waajuram nag ca daara ja moom la ko sëriñ Touba euh, moom la waajuram daal li ñëw ci sëriñ bi bi ñëwee ci sëriñ bi nag ba ni ñu ko xamee bim ñëwee ci bi ñëwee ci sëriñ bi nag euh, la la la ci lenn ci siyaar yi mu doon ànd sëriñ bi moom la ko sëriñ bi laaj waajuram. mu ñëw ci sëriñ bu mag bi sëriñ bu mag bi ci boppam moo ko àggalee alxuraanam ndax nee na bi mu ñëwee ci sëriñ Tuubaa ci li ñu sëriñ as nettali ne eh, sëriñ Amsatu moo ko nettali mu dëppoo ak li Baay Seex Abdu Jaxate wax ak mbooleem waajur yi nga xam ne ñi ngi fi woon daanaka ñi ngi fi xaw nañ cee dajee mooy bi sëriñ Amsatu ñëwee ci sëriñ Tuubaa ci la àggalee am njàngum alxuraanam daan sëriñ bi wax bokk na ci li sëriñ bi njëkk wax boo boo xëyee nga nga nga ngay ngay jukki ñaar fukki isib di ko tari kon alxuraanam moom muy njàng mi njëkk ci Sëriñ Tuubaa la ko àggale taala anhum ajmain euh, ginnaaw bi mu euh, sëriñ bi bi mu ko jàngalee manees na ne ku la jàngal moo yar kon nañuy jàpp rek ne way juróom ak sëriñ bi ñoo taxaw ab yaram ginnaaw bi loolu jàllee euh, sëñ Xamsatu nag ak jayanteem ak sëñ Tuubaa akub àndam ak sëñ Tuubaa moom fan la soqi donte na am nga sax loo xam ne junj nga ko ci biir wax ji waaye daa mel ne danga ko wax ci ba pëstal ñu bëgg nga ñëw ko ci ak faram-fàcc ci nu ko sëñ bi woowee ak sëñ xamsatu nu mu ànd ak sëñ tubaa ak jamono joojoo tam day mel ne at yi bareegul ci yan at la toll jamono jooju. sëñ Baye Mbacke nii lu bari santal ma ko waaye laajal ko ne njàngum xam-xamam si yem ndax am na kenn ku ci rax cerno keneen jàngal na ko wala lépp cerno ko jàngal. waaw kay jërëjëf Mbacke maa ngi lay siyaare bu baax euh, kon euh, sëñ Saliou ñu jàllale laajub sëriñ bi te muy ndigal li te mooy ndax njàngum xam-xamam sëñ Hamzatu am na kenn ku ci rax maam Cerno am déet. njangum njàngum xam-xam mi ndax am na ku ci rax maam Cerno wala di déet waaw kay Mbay Mbàkke maa ngi jégul nag téléphone bi moo xaw a mooy bari soné bi yàq kii bi eh, loolu rek la waaye maa ngi ci jéglu bu baax eh, waaw sëriñ satu bi sëriñ bi wootee rek eh, mbokkam mbokkum dara mu ko jege woon lool ñu naan ko seriñ maam Balla Touré Baraay Euh, mooy nee nañ ci li gën a wér mooy ki ko indi ci Serigne Touba euh, fekk bi mu déggee woote bi rek ca sansa euh, kii na ko waaye fekk booba mu koy dikk ay jamono yi mu koy dig mu koy dig ne nañ ñu xaar ba nawet bi sori ba nawet bi pare mu ba nawet bi pare nag tombe woon wala ba nawet bi soree ba mu buural ba def yooyu lañ wax ne ci lay doog ànd ak Mame Balla Touré Touré Mame Balla Touré Baraay ñu jigee mbaakol ci kajoor daal dem fekk sëñ Tuubaa Mbàkke kajoor ci xam nga loolu lépp ba tey kajoor la woon sorewut ca loolu moo gën a lëng moo gën a yenu maanaa ba tey boo xoolee ci histoire fañ dëkkoon ak fee sorewutoon sore gu mel noonu ca lañ nag daal di ñëw ci sëriñ bi bi Mahmoud Asta ñëwee ci sëriñ Tuubaa daal di siyaare si eh, jébbalu si bi mu fiy ñëwaat beneen yoon daal di ànd ak sëriñ Hamsatu bi mu àndee ak sëriñ Hamsatu mu siyaare mu nuyoo ko moom bi mu demee ñetteel yoon bi mu ñëwaat nag ànd àndut ak sëriñ Xamsatu waaw dañ ne yoonu njëkk yi bi mu ñëwee dafa ànd ak sëriñ Xamsatu yoonu ñaareel bi mu ñëw ànd àndut ak sëriñ Xamsatu ci la ko sëriñ Tuubaa laaj nañ ne ko ana doomi eh, doomi libaas ja nga yoroon de xanaa amoon nga ci kenn mu wax ko na ko waaw amoon nga ci amoon am nañoo ci amoon mu wax ko mu wax ko ñim ci amoon mu ne ko ana ka nga àndaloon keroog mu ne ko am satu maga kon ko booy ñëw na ko àndaale waat eh, bi bi muy ñëw nag daal di àndaale sëriñ Xamsatu eh, bay dem nag ci la ko sëriñ tubaa wax ne ko boo ko fi bàyyi woon kat ñu defaral ñu defaral la ko sëriñ Mamour so daal di jaayante ak sëriñ Tuubaa ci jox ko am satu moomu ak mboolem loo xam ne jur na ko muy góor ak jigéen daan na ko ak ñooy bëgg a judd ñëpp daal leen di jébbale sëriñ Tuubaa daal koy téye ci kër gi nag diir boobu mu tàqale kook waajuram daal di nekk ci loxoy sëriñ bi sëriñ bi àggaleel ko alxuraanam eh, di ko jàngal xam-xam boole kook mag ñi nga xam ne nekkoon na ak ñoom it ñu ci bari jàngal nañ ko eh, ba yàlla dogal mu nekk koo xam ne it moom eh, macha allah ci wàllu njàngam ay leetaram yi nga xam ne gis nañ ko mu bind ko ci kàllaama arab firndeel na ne borom xam-xam bu la woon ku jekk woon kàllaama arab la ba tey. te loolu it incha allah rabbi du ñàkk bu ñu demee ba ci biir danañ ci indi suñu kemt lay kattan waaw euh, kon loolu moom yaakaar naa moom lañ indi ci laaj bi kon ak jaayante ak jaayanteem ci gàttal mi ngi rek ca Mbàkke Kajoor waaw waajuram moo ko boobu fekk fukki at ak ñaar la am loolu moom ñi ngi ay lu bari ci ay njabootam ay wax ne ñoom seen nopp ak gémmiñu sëñ am moo leen ko nettali ne bi mu ñëw ci Serigne Touba fukki fukki at ak ñaar rek la am xamutoon dara lépp lu nekk ci moom Serigne Touba ko ci def moo ko jàngal euh, mu jaayanteeg moom foofu nag Serigne bi digal ko lam ko njëkk digal ci liggéey mooy bu xëyee suba tër ñaar fukki sib boole ci ak di di defar kees gi ak di di duy ndaa ya fa nekk fekk booba ca kër ga ñu koy defar ba tey mu digal ko mu bokk ci ñaa nga xam ne ña ngay liggéey kër ga. dama fa fekkoon ci ay sàkkari ñu daan defar rek yooyu moom laa ànd ak bi ñu am fa as diir su gàtt sëriñ bi ànd ak moom daal di ñëw fii Mbàkke bi mu fi diirub bi mu nekkee Salaam mu nekk fekk moom ba ba ni sanc eh, jàppande kon ak jaayanteem lu teel lu teel la ci moom waaw ci at yooyu la ba tey. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah eh, sëriñ Mbaye Mbacke ñoo ngi siyaare bu baax loolu de ñoo ngi ci jégalu ci suñu kilifa yooyu ñoo ñu ñun nag bi ñuy gëstu moom. Euh, sëriñ Modou Guèye Jommooy euh, dafa mel ne wax nañ ne jàng na ko euh, lool it ñu ci ciy toppatoo ay jeexit yoo xam ne wér na bi bi nga xam ne nag sëriñ Touba da koy jàngal ba muy dem ci géej géej gi moom li sëriñ bi nekk ci géej gi lépp ba ni mu ñëwee ak àggal lépp lu muy àggale ci ron ndigalub maam Thierno la fi nekke woon ndax dafa bokk ci sëriñ tubaa tey woon wax leen ne du ñu dem. waaye nag wax nañ ne eh, bari na ci mag ñi nekk ci Sëriñ Tuubaa ci jamono yooyu ñu fi fekkoon ñoo xam ne eh, jànge na ci ñoom da ci am ñoo xam ne nag dañuy dañ ci amul ay yu gën a leer waaye daal li ëpp ci am njàngam jàpp nañ ne ci Sëriñ Tuubaa ci boppam la ko jànge ndax moo ko bi muy ñëw ci Sëriñ Tuubaa moom ci lu ci lu leer loolu waa Mbàkke lu dëppoo nañ ci ak njabootam gi nekk fii li ñu wax mooy fekk na boobu mi ngi jàng axdar yu mi ngi jàng axdar yu boobu Sëriñ Tuubaa moo ko àggaleel Eh, jàngal ko mboolem téere yi fi nekk ci yaakaar naa diir bi mu jot a nekk ak Serigne Touba bu fekkee ne wér na ne ci Mbàkke joor la ñëwoon diir bu yàgg lay doon kon dafa mel ne bi Serigne bi dem ci géej gi xanaa rek jot gi mu amutoon ndax eh, bi mokkalee alxuraan ca na mbaakol doon def nga xam ne dañoo war a dem ci penc yi ñi daan digloo ñu def ko ko taqoo gi mu taqoo nag Serigne bi Serigne bi di ko jàngal ak di ko liggéey loo eh, ak am fu mu ko féetaloo woon ci yu bari yu mu ko naan def loo bokk na ci daan ko bindloo loolu taxoon na nag bi mokkalee alxuraan ca na ko mbaakool baaxoo woon a cosaanoo def moom loolu jàng na ba sori loolu ba nekk mag ci defu ko defu ko woon ndax bàyyi sa internet li na ne sëriñ Abdourahman bi topp ci sëriñ Hamsatu bokk na ci ñi nga xam ne eh, bi sëriñ bi dem ci géej gi géej gi eh, bi ñuy jaar foofu ci Mbàkke Kajoor ñoo ñu yenoon woon bagage yi eh, sëriñ Abdourahman ci la bokkoon ci la ko sëriñ bi yabale sax ci Mamour Asta kon kooku boo fekkoon na mu dëgër ba nekkoon mag lool sëñ am sëb nag bi sëñ bi nekkee ci géej gi moom lépp lu mu def mën naa am ci ndigal sëñ maam Cerno la ko defee waaye nag am na ñeneen ñu bari ñu ci ñu ñu ko jàngalaat ki ëpp nag lu mu ko jàngal moom mooy Sëriñ Tuubaa ci li gis ci ay jeexit. baarakallaahu jërëjëf sëriñ Saliou laaj bi leer na lool ci loolu nga xam ne moom la la sëriñ bi laaj tontu nga ko tontu bu leer yaakaar macha allah kon ginnaaw bi nga xamante ne ji jaayante na ak sëriñ bi ci fukki atam ak ñaar ni nga ko waxee nekk fek sëñ bi moom ñaata at la sëñ bi nekk ndoog moom soog a dem ci géej gi bàyyi ko fi euh, bi muy dem itam ci loxob maam Cerno ko bàyyi woon euh, kon sëñ Xamsatu diirub li sëñ bi nekk ci géej gi itam moom euh, jamono jooju ci lum nekk wala ci jàng la toll rek ci jamono jooju. waaw kay sëriñ Mbay Mbàkke ñoo ngi siyaare bu baax waaw moo moom de xam naa euh, li fi mag ñi doon xaare rek sëriñ bi ci noonu la ko doon xaare ndax ci diggante bi euh, dem na fi ñëwaat euh, mbaakol daal di tare ji ca ci la noonu ñu doon def ca mu xawoon koo rëcc may wax sañu ko jàngal sëñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdaws laa bëggoon a wax waaw sëñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdaws moom moom moom moom jàngal na ko ñi fi doon xaar sëriñ tu nag ni ñu ko doon xaare àggale seen seen xam-xam di fi tarbiyawu noonu la fi nekkoon di ko xaar moo tax bi Serigne Touba jugee ci firnde ji it mooy bi Serigne Touba jugee ci géej gi bi mu agsee Daaru Rahman rek ñam fa njëkk a woolu ca la bokk ca ba sëriñ Serigne Hamsatu ñëwee foofa yëguñu woon lenn lu ko Serigne Touba doon def la waat foofa ca euh, ca Daarul Mannaan lu dul tàmbali ko def loo ab liggéey nag ci liggéey yi nga xam ne daa sës ci moom waaw ca ndax loolu moom ci daal daarul man naan la ko tàmbalee ci juróom mboolem juróom-benn juróom-benn weer yi fi sëriñ bi am yëpp noonu la fa nekkee ak moom ba nii sëriñ bi demee Mauritanie dafa àgg Mauritanie rek wolu ko diirub la fa sëriñ bi nekk mu taxoo woon ak moom euh, loolu moom kon lim fi taxoo woon daal lim taxoo woon ak sëriñ bi niñ mm, daan def murid bu ñuy tarbiyee ci bàyyeeguñ la rek lépp loo xam ne eh, muridun saalik daan doon na ko def moom la fi nekk woon diirub bi fi sëriñ Tuubaa jugee ba ni mu ñëwaatee ci lool it yaakaar naa firnde ji mooy soxna Fatou Balla mi nga xam ne maam Thierno jox na ko ba mu ci suñu sang soxna bàjjen say jaxate muy waajur sëriñ Seex ak euh, bàjjen soxna abi muy waajur sëriñ Abdu Abdu Samad loolu firndeel la ne euh, ko yoroon it am na mujj daal mujj naa am fu mu ko ba jël euh, soxna Fatou Balla moom nga xam ne mooy càmmiñu sëriñ Seex Awa Balla ak sëriñ Modou Awa Balla jox ko ko jërëjëf sëñ Saliou kon sëñ Amsatu wax nga ci biir wax ci ne daarul mën naan la jëkk a gisawaat ak sëriñ bi bi sëñ bi jógee ci géej léegi ku wax daarul mën naan ne ginnaaw daarul man naan na gànnaar boo ne gànnaar ne jolof jëkk njaareem gànnaar ak jolof ndax sëñ bi daa àndoon ak sëñ Amsatu am déet ndax sëñ Amsatu demoon na gànnaar wala déet ndax sëñ Amsatu demoon na jolof wala déet ndax liggéey yooyu nga wax ne moom la ko sëñ bi tàmbali di liggéeyloo daaru mën naan rek la yem wala sëñ bi daa wéy ak moom gànnaar wala jolof diggante sëñ xamsatu euh, ak sëriñ bi ci diggante boobu lañu bëgg nga ñëwal lu ci sëñ Saalix ah waaw kay sëriñ Mbay Mbàkke ñoo ngi lay siyaare bu baax am na nettali yu wér yoo xam ne jële nañ ko ci sëriñ Abdoulaye yooyu mi ngi ci kaset si euh, sëriñ Abdoulaye yi dund mu ciy nettali ne sëriñ Xamsatu nettali na leen ne keroog bi buur siin kumandoo fenn kumandoo fen Jóob kumandoo fenn Juuf di ñëw ca Serigne Touba ca darul ma naan fa la ko fekk di nett li bi ba jub Serigne Touba suñ Modou Xeyri ba tey nett li na ko band bi mu ngi fi suñ borom yokk leeram ak yërmande ci moom eh, ba mu ñëwee ba jub sëriñ Touba daal di summi mbaxana mi dem ba jubaat ko summi bot yi ba mu ñëwee ba ak si Serigne bi laaj ko eh, lii illa ji mu wax ko ko ci eh, wax ji ñëpp xam dañ ci bañ a jaar muy guddal wax ji Euh, sëriñ Tuubaa yi daat ko cee diglu rey di di di di li ab jullit di sàkku rek la yow xeam rawatina ab murit euh, sëriñ Hamzatu nee na jataay boobu lépp fa ko fekk jataay bi nga xam ne it euh, sëriñ Tuubaa digaloon na sëriñ Mohamed Touba bi mu koy jox xasida ak rabbi bi maay saraxu gi di ko ci xamal ne kon am na xew-xew yu bëgg xew ci dëkk bi fekk booba sëriñ bi gas la na ay kàmb yu rëy daal ci denc doon liggéey bi nga xam ne ci doon nañ ko ci doon na ko jëriñu bañ ko ci dencee eh, la ba loolu jógee sax lañ ko fa def maanaam laata muy laata mbaaxaan di ñëw ñoom doon àndal di xotti sàkket yi fekk boobu sëriñ bi joxoon na xas dégg Mouhamed Touba na ko bu ñëwee na nga ko jàng ñetti yoon ci ko ca kaw dégg nañ ko njabootu si sëriñ Hamsatu gu bari ñu nett leen si Hamsatu moo leen ñu jàng mu jàng rabbi bàyyi sama ba mokkal ko bi ñëwee mu mel ne lu koy yéene ndax tubaab yi ñàkk gi ñàkkoon a xam ne tooñ gi ñu tooñ tu waa léegi fes na ca jàpp nañ ne jekku na jekku goo xam ne war na am na fayu euh, suñu mbokkum pël moomu nga xam ne gisoon na bagage yi yooyu bokkoon ci bagage sëriñ bi jóge woon ci géej gi ñu koy ron ron ko andi ci kër gi mu jàpp ne ay ngànnaay la wala mu nekkoon sax pas sans secret boo xam ne ab renseignement généraux la bu daan jël ay renseignement di ko yóbbu euh, tuuma yooyu nag bañ ñëwee <coughs> gaal gi nekk Darou Khoudoss tey bañ cey jëm xeej baak yooyu yëpp siem sot nee na fekk na ko bi eh, Mouhamed Touba di jàng xasida yi ci li waajur yëpp nett leen si am sat loolu leen wax ñetti yoon rek la ko Sëriñ Touba digaloon mu koy jàng eh, xasida gi eh, tubaab yi doon tiit ba ba mujj di yàllang maanaam seeni gànnaay di ndax li sëriñ bi wax ci xasida yi rek maxawta maa xad naxaahul xalbu min dararin ñoom dafa mel ne li nga xam ne tooñoon nañ ko sëriñ bi ca mën naa am sax sëriñ bi ci njëlbeen xelam nekkoon na ci jéem a seet nu mu jàmmarloo ak ñoom ni ko waxee ci yeneen i béréb ci bu ma fàttali ko ida dakartu dalika almabita wa dalika alamira wa sabuta a tasbita taarat ila aljihaadi bil armahi nafsi walakin dabaax ni maaxi googu nga xam ne moom lay junjaat foofu naan ma xawta maa xam na xaaxul xal bu yow suñ boroom far nga li nga xam ne sama xol jublu woon na ko ci ay xeet lool ñoo xam ne tubaab yi kii nañ ko waaye loolu dafa mel ni tubaab yi xamuñu ko woon yooyu nag si am su fekkee na ko moom ci daarul ma naan foofu yi sëñ bi moo ko fooloo bi sëriñ bi demee Mauritanie nag bi muy dem ànd ak moom waaye bi mu àggee rek la yónnee daat koy woolu bi sëriñ Amsatu àggee Mauritanie nag moom ci eh, daanaka darajatu tawaatur lañ ci am ci ak ñoom ñëpp li ñu nett li nee nañ sëñ Amsatu nett li na leen ne mm, man Baye Cheikh Anta nett ma ne sëñ Abdourahmane nett na ko mi bokk ak sëñ lépp ne ko jamono jooju nag moom gis sëriñ xam Amsatu gis sëriñ bu mag bi ko gën a yomb ndax bi sëñ am sut accès rek ci ab baraleem waaw bu ñu amoon ndigal mën nañ manes na fi dugal leen na ci mbindum sëñ am sut baraleem sëriñ bi nekkoon ci eh, ginnaaw néegam fa la ko sëriñ Tuubaa dugal mooy béréb ba muy liggéey fi mu ne dund boobu ñuy wax te demoon na ba jeex ba desoon saakom njaxanaat eh, boobu bàyyi seex anta nett li na ma ne bi mu demee ba des loolu dañ daan sëñ Abdou Rahman da nett li ne bu ñu masaana xee suba dañuy tibb tibbal mag ñi ku nekk am ngëb mooy li nga am ci saakoom ñaxanaat bii di bëgg a jeex daal la koy jox jox la ko kasu ndox yow gaa yi fexe noo ko def comme si am sut nag daawul mën a génne ci barale bi ndax sëriñ bi li mu ko daan liggéeyloo moo tax bàyyi Seex ne sëriñ Abdourahmane da ko nett li ne daan def bu ñu ngëbee ak ngëbam jox ko ak ngëbu sëriñ am satu mu boole ñaari ngëb yooyu yëpp daal koy baxalal si am satu yóbbul ko ko moom bu paree daal di dem wari eh, werg yi nekkoon ci at